voilà salaamaaleykum mbokki internet xibaaru Bambouck ñu ngi leen di nuyu di leen wax rek dal leen a jàmm tey nag ñu ngi fii ci ñangeen Fafa bokk ci zone de Kasewo commune de Ida Mouride war a fekkee la grande finale du tournoi de la jeunesse muy euh, ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo dekkee ci zone Kasewo organisé ko donc le grand parrain donc ñoom ñu jël lépp teg ko ci loxo Denis Wula Ndiaye seen nekk responsable politique bu PASTEF donc ni ñuy def rek mooy ànd ak yéen ci ambiance ànd ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy euh, finale bi mais aussi kaddu yi nga xamante ni dinañ si ci bii finale mais nag gis nañ euh, le muy euh, Déni Wula Ndiaye Sène euh, ànd ak délégation bi nga xamante ni nii euh, yaakaar nañ ne dafa mel ni tey final bi dafa nar rax politique lu si mën a am rek dinañ leen ko dégg dégtal en direct fii ci kër gi sur BTV ak xibaaru Bambouk. xam naa kontante ak mbégte boo xam ne bi ma juddoo ba léegi tey laa ko am muy bés boo xam ne bés bu ma sawar la bés bu ma sabablu woon la ndax yaakaar naa bi ma dalee organiser tournoi ba léegi tournoi bu mel nii ci ñangeen faafa wala son kasewo maa ngi ko soog a am ndax bi may tëgg tournoi yaakaar naa bi ma tàllalee loxo dëni laa tàllal loxo mu nangul ma ko ma am ci kontante ak mbégte ñun ñëpp ñu am ci cofeel goo xam ne dani yaa xam fi nga bëgg a yegg yàlla na la fa yàlla yeggale barke Seydina Mohamed yaag délégation bi nga àndal ndax lii yombul borom xol bu rafet moo ko man ndax lii biñ ko dalee sabablu yàgg na ñuy mébét ba yàlla boole ñu ak ku mel nii kon yaakaar naa dinaa gërëm dani ngërëmaan le loo xam waa Kasewo asalaamaaleykum waa Koungheul asalaamaaleykum waa Yida Mouride asalaamaaleykum waa Lour Escale maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp dama kontaan tey deni tey dama kontaan mais tey damay wax parce que dañ ma cëralee ma wax même bu dee ñaari baat la dinaa ko wax parce que kontaan naa parce que suñu ànd maag yow du fii mais dakaar la kon tey bu ma ñëwee fii waa ñangeen wala waa Kasio wax ma ma wax pour yow mais du question damay wax dara mais dañuy wax pour tagg la wala pour remercier la parce que li ñu defal nii ci zone Kasio c'est la première fois Déni la parrain di jour du final de tournoi da Ndiangéne waa Casio ñu ngi lay remercier ñu ngi lay gërëm di la sant sen gërëm ak di la sant xamul fu mu yem deni seen waa Casio ñu ngi lay sant wallahi waa Casio ñu ngi lay sant te ñu ngi lay ñaanal fi ngay jëm yàlla nga fa àgg ñu ngi lay ñaanal fi nga jëm yàlla nga fa àgg maa ngi nuyu ki nga xam ne moo doon moo représenté woon Pastef Koungheul mooy Lamine Lamine nit ku baax la nit ku baax la ku yaatu coalition bi moo ko jiitu woon ak waa coalition bi yëpp maa ngi leen ñu nuyu di leen gërëm di leen sant di leen wax ne dafa am ki nga xam ne nii tey mooy Denis seen dafa nekk Dakar di représenté waa Koungheul te amagul benn poste kon kii tey buñ ko joxee Yewwi Askan wala ñam fuñ ko jox poste dana indi Koungheul foo xam ne nii ñun séntuwuñu woon ko tey Denis Sène ñu ngi lay gërëm di la sant di wax ne waa Casio yëpp ñoom lay waxal waxuma pour waa Njangeen mais waa Casio yëpp lay wax ñu ngi lay gërëm di la santa di remercier tim Malick mii Malick mii suñu grand frère bi parce que Malick dañuy defal benn geste bu noble fii ci Njangeen Faaf depuis ñi def euh, ñu tour organiser tournoi bi ay liggéeyam yëpp da ko bàyyi jàpp ci liggéey bi kon Malick jeune Casio jeune Njangeen Faafu ñëpp ñu ngi lay gërëm di la sant ci affaire bi nga leen defal ñu ngi lay remercier maa ngi nuyu ñëpp wasalaam. ñu ngi nii ñu fi teew ñëpp ku nekk turam ak santam tey nag vraiment dañoo am mbégte waru woon jël kàddu sax parce que notre père a parlé au nom de la coalition mais comme Denis sama grand la te forcé dama kàddu gi foog ma wax donc mu nekk un responsable politique passif. di liggéeyal Pastef parce que gis nañ euh, ba mu nekkee ci parti ba ba léegi li mu ñu apporteel euh, mu nekk un boo xam ne vraiment ñun dañuy roy ci moom ci politique parce que bien vrai que bañ duggee ci politique yàggul mais moom moo ñu tracé yoon bi moom moo ñuy orienté moom moo ñuy guidé mu gëm Pastef gëm président Ousmane Sonko mébét bi mu am ci président Ousmane Sonko tey bu ngeen xoolee t-shirt yi affiche t-shirt yëpp mu ngi ci mooy élire le président Ousmane la tête de la magistrature suprême mooy élire Ousmane Sonko président donc ci loolu la nekk di ci liggéey di ci wax di ci dox yéene boobu ñu am ñun ñëpp tey jii ni teew fii ñu ci gën a bari moom mooy élire ko donc nag ñu ngi ko ci ñaanal yàlla mu loolu noonu mu nga xam ne bëgg na ko yàlla defal ñu ko ñun ñëpp te mu gën ci ñun mooy élire le président Ousmane Sonko maa ngi jégalu nag ci kàddu yi programmé wu moon discours bi maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di sant dani encore une fois vive président Ousmane Sonko vive la coalition Yewwi Askan Wi je vous remercie Ndiangène Kanté Kanté merci beaucoup asalaamaaleykum mbokku Ndiangène Fafa asalaamaaleykum mbokku waa Kasewo aleykum waa Ndiangène Fafa asalaamaaleykum waa Kasewo jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké tey dama kontaan waaye bala maa jàll ci samay kàddu Cheikh Ndam dafa am lu mu wax biñ ma mayee aaw dakaar ma toog fa weeru koor luñ ma toggal ci ndagu Cheikh Ndam moo koy lekk mu ngi nii <laughs> une semaine la fa def ak man luñ ma indi ci ndagu mu lekk ko mu ngi nii mm-hmm. di gërëm samay soxna d'abord mm-hmm. muy Mati Cobaan di ci toftal sama jabar Kumba Caam di gërëm coalition Yewwi Askan Wi awma seen fay mais di gërëm aussi waa ñangeen faafa su ma waxee coalition Yewwi Askan Wi wax naa Lamine Gueye grand parti wax naa Papa Aliou Dabo grand parti wax naa Alaaji Mbaye PRP wax naa sum grand frère le philosophe Ngari Diakhaté wax naa grand Souleymane Ba nga xam ne sama doomu yaay la ñoo bokk yaay wax naa grand Birane Ndaw PRP wax naa Yérim Thioune PRP ñooñu amoo seen fay parce que bési tey bii li muy rëy rëy rëy rëy mbégte gi ma am mooy niñ ma daree ñoom di gërëm di sant aussi sama benn xarit Souleymane Sangoulé Samb dafa jóge ba Kolda Cheikh Ndam def dérangement ak déplacement bu loolu weesoo Malick Thiam dama koy gërëm di ko sant di gërëm sama sama jigéen sama xarit Ndey Ja mu ngi fi représenté Mansour Ndiaye représenté oustaz Pape Diop maa ngi gërëm di sant samay magu koñ ba maa ko mag sax mais dama koy sagal ku ma dàgg Cissé di gërëm Xari Badiane di gërëm Adja Mariama Cissé di gërëm samay mag yi nga xam ne ñoo ma formé ñoo ma encadré te lu ma mën ci mouvement nawetaan ci mouvement associatif lu ma mën ci politique ginnaaw yàlla ñoom la je vais citer El Hadj Alioune Sène grand frère dinaa ci toftal grand Fëgg jaay il fi notre euh, entraîneur moo ñu formé moo ñu coaché Khalifa Kayre ñu ngi lay ñu ngi lay ci gërëm di ci toftal grand Bowe Ba di ci toftal Modou Thiaw Diouf grand moo Thiaw Diouf maa lay gërëm di la sant di bëreel cant ak ngërëm sama grand frère Pape Sène ginnaaw El Hadj Pape la di gërëm mes amis d'enfance le groupe Datigui di gërëm mes jeunes frères qui sont là autour de moi je vais citer je commence par Biram Niabali un gars très sympa très discret très diplomatique qui m'a beaucoup aidé ci final bi bu mu weesoo Biram ma teg ci sama rakk lay sekk laay sekk efficace laay fekk dynamique lui aussi laay sekk très effacé bu ma paree ci laay sekk dina métti nag parce que xam parce que sama booy jamono yi dañoo garaaw ma ci teg sama capitaine emblématique Aliou Mbengue dañuy xuloo xeex rek xeex rek lañ dul def dañuy warante ba dugg boîte vocale mais c'est un jeune très ambitieux très réfléchi très politique nu mu xareñee ci nawetaan noonu la xarañee ci politique di gërëm moom vice président Lamine Diouf di gërëm maintenant ñi nga xam ne ñoom laa tuddee bës bi je commence par Djili Sall moom petit frère transitaire qui est à Dakar qui a beaucoup fait pour la finale di gërëm di sant sama grand frère Amadou Diallo Khalifa Kayre boo ba cant ak ngërëm ñeel na grand Amadou Diallo di ci teg sama jarbaat sama doomu moo du fay moom ak grand Amadou Diallo ñoo nekk banque islamique du Sénégal su ma paree ci ñooñu dama ci teg Fatou Maha Cissé taalibe Cheikh Béthio cantakun bu mag boobu inspecteur des impôts et su ma paree foofu dama ciy teg moo ami mon frère Alioune Badara le jeune maire de Koungheul maire bu bees coupe bu bees di ci teg le Linguères di jiital ci cant googu anam Fanta Fanta jërëjëf Mama jërëjëf Dieynaba jërëjëf kulim juum kulim juum maa leen di gërëm di leen sant bésu tey bi bésu mbégte la waaye nag ku gis nen ne nen a ngi Malick mi moo waral lii lépp Malick Thiam moo ma samp ñangeen faafa mo coow grand mo coow Pape Diouf Pape Samba Diop Malick Thiam moo waral lépp au passage je signale que Mame Thierno Dia ñëw na diplôme d'honneur lañ décerné sa rakk l'activiste le combattant le brave le courageux Mortala Dia di diplôme d'honneur moom lañ ko moom lañ ko jox décerné maa ngi gërëm waa ñangeen ñoom kaani mbootaayu ñangeen bi di gërëm jeunesse ñangeen di gërëm les équipes finalistes di gërëm équipe yu participé woon ci tournoi bi kontaan naa ci yéen Malick mention spéciale El Hadj mon jeune frère maa ngi moom day ànd fu ne Dakar fu ma dugg mu dugg fa pour la réussite de la finale mais du ma fàtte Aziz Cissé borom Kër Seen Jëbel Cheikh Aziz moo samp Kër Seen Jëbel maa ngi gërëm Ndiaga Loum Pastef Idda Mouride Ibrahima Ndaw Pastef Idda Mouride Alaaji Cissé Pastef Kër Ibra mbay Ablaye Seck Pastef Fass Cekkeen Omar Sadio Ba Ribo Escale maa ngi gërëm Babacar Ndiaye coordonnateur départemental sama rakk sama xarit Alaaji Guèye maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm jigéenu Pastef yëpp di gërëm Ndey sa Ndaw di leen tàllal loxo pour ñu ñëw ñu liggéey ensemble pour massifier le parti Ousmane Sonko loolu la soxla Yewwi Askan Wi Ngaari Jaxate loolu la soxla expérience bu ñu dund ci élection yi passé war nañu servi de leçon dañu war a booloo bokk ndey bokk baay pour l'intérêt de la coalition Yewwi Askan Wi loolu je lance un appel solennel o membres de la coalition qui sont là et à mes frères qui sont là-bas de l'autre côté ça c'est important parce que ñu ngi jëm ci yeneen élection yu am solo législative kon loolu lu mënta ñàkk la euh, Cheikh Ndam li duuf ci nag bi ñëpp xewlu ci cin li li nga wax dafa foor Cheikh kontaan naa ci yow gërëm naa la sant naa la maag yow ñoo bokk yaay di gërëm suñuy soxna Aminta Gueye madame Dramé Aïcha Jabu jabaru Majo Mbeng jama wañ waaye Cheikh duma ma fàtte sama mbootaay yi nag mbootaay Kiné Mbay mbootaay Xadi Awa mbootaayu Rama Mbay mbootaayu Soxna Gueye mbootaayu Aysatu Boolo mbootaayu Aminta Pen mbootaayu Mama Sarr Fat Ndaw maa ngi koy gërëm di ko sant Ami Pen maa ngi lay gërëm di la sant di balay cant ak ngërëm sama mag jee jugee Dakar sama mag ju jigéen Ndey Jigo mooy mag ci Alioune Badara Ly mag ci Fëgg Jaay Fëgg mu ndaw mag ci Alioune Badara Faye mag ci Ala Diop ndey bu ñu doon xeex ba am problème ndey moo ñu doon atte mag ci jibi saaxoo suñ amoon problème bu ñëwee kër ga muy man di jibi di fëgg jaay di majow di mbay ndaw di pap ndongo ndey mooy arrangé ki may gërëm nag nekku fi muy sama xarit sama doomu ne pam ndongo maak moom ñoo nekk Dakar mu teg ma fu kawe defal ma lépp jox ma lépp may dàgg nu ma neexee Pam Ndongo dafa am empêchement parce que dafa am décès Touba mais xam nga ne Pam Ndongo maak moom ndox la ak suukar wala Cheikh ni ñu koy waxee. boole tuur wala boole. voilà kon defe naa ne. guddi guddi na dañuy procéder au remise symbolique des jeux de maillot à la remise symbolique du trophée ak mise bi équipe bi gagné. Euh, Alaaji Mbay PRP équipe bi gagné am na fukki junni ak juróom grand ngaari xeeb naa ko waa na ngeen xeeb naa loolu te maa ngi ñëwaat lii ndorteel la lii ndorteel maa ngi ñëwaat am na yeneen programme yu nal Tamsir xam na loolu Malick xam na loolu di gërëm sama frère Aliou Ba ACEP doomu ñangeen ngeen jàppale ko un digne fils un valeureux fils waaye kaani voilà jëre ngeen jëf mbokk yi lii leen leen jëlaloon fii ci Niangène euh, Fafa bokk ci commune bu euh, Ida Mouride jaune Kasewo muy la grande finale de la jeunesse ndaw ñi nag jël ko tuddee ko euh, le responsable politique de PASTEF Denis Wula Ndiaye Sène loolu nag gis ngeen ne ñaari équipe yi doon jongante muy ASC euh, Jàppo ak ASC Guy gi ASC Guy gi nag moom moo mujjee raw gàddu gi benn bal euh, ci dara loolu nag dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni ni euh, kilifa gi di Denis Wula Ndiaye seen yëkkati na ko mu am solo mais aussi ci teewaay ñi nga xamante ni ne ay responsable politique bokk ci grand parti bokk ci partie pur bokk ci aussi euh, parti bi nga xamante ni nii Déthié Fall moo ko jiite ñoom ñëpp tey fekkee si neen li nga xamante ni moom mooy la grande finale euh, du tournoi de la jeunesse zone Casteo nga xam ne euh, ci teewaay ak chef coutumier ku si mel ni tey euh, le fédérateur Ada Camara ñoom ñëpp fekkee neen euh, li nga xam ne moom mooy final bi loolu nag mën neen wax ne ni ki tey entrée politique euh, Déni Wula Ndiaye Sène ci biir département ci coalition bi nga xamante moom mooy Yewwi Askan Wi mais aussi ak parti bi di PASTEF donc lii la leen jëloon di leen joxaat rendez-vous ba beneen yoon